seen Senbuzz lépp lu ngeen soxla ci seen dund di li ñu yitteel appel d'urgence di émission bu bees boo xam ni Senbuzz ñoo leen koy proposé benn famille bu ñu fekk fii ci jàmm gën jaak euh, saaw di dund ay tolof-tolof adunaa ni ñu bindoo euh, lan mooy gàllankoor bi nga xam ne ñoom la ñuy dund jamono ji képp kenn ku nekk si ñun képp kuy sénégalais am na lu la war sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg sa morom bu dul solidarité du leneen di li sabab tey ñu seet si leen ah yaa Ruqee ñu ngi lay nuyu. Dia na nga def naka yaram bi. maa ngi tane maa ngi tamit bu baax. yaay booy ñu fekk la nga tawat depuis combien de temps depuis ñaata temps nga nekkee ak tawat bi ngay dund jamono ji. avant ñuy um koor ba tey avant ñuy um koor ba tey. feebar def ay miir ay bopp buy métti affaire yooyu may dem dem naa hôpital kii. Philippe Senghor laa fajoo.

defi jalis bi ma def Dantec waa Dantec registré ma ñu bindal ma ci lañ ma bindal kii boobu kii kii kii clinique bi ñu ñoo ñu bindal ma clinique bi clinique ba ma dem fa ñu ne ñaar fukki junni ak juróom benn ñaar fukki junni ji juróom benn yooyu sama xaalis yow yu premier jour dama kaa def xatu yaay bee moo ko moo ma ko lebal moo moo ko lebal ma dem ñu defal ma jalis bi ma ñëw man da sasuma ci kenn nii la la daan def ñu yebal la benn clinique bi nga di euh, gannaaw bi nga xamee ni jóge nga Philippe Maguiline Senghor jóge nga fa clinique ba nga dem dañ la xool ni la dialyse moom nga war di def laaj la ñaar fukki junne ak lan ak ak juróom benn mooy sa yoon bu njëkk nga leb ko dem fa foofu sa kilinik ba léegi nag sawar xaritu yaay bi moom moomuñu doon yóbbu sonn ci trop moomu doon yóbbu fexe na Dantec pour ma am fa social mais kayit yaa ngi fa kayit yi fu nekk déposé nañ fa kayit am am ñu dialyse ngay dund jamono ji benn clinique ngay fajoo di soxla xaalis bu bari maanaam euh, ñaata ngay soxla ngir sa rendez-vous yi ak rendez yi par ñaata fan lay nekk boo demee mardi mercredi jeudi vendredi man demaan. waaw ñetti fan yu nekk da nga dem jëli rendez-vous. nooy dem dem dem waaye defi jalis. defi jalis ma demee mercredi jeudi ñetti fan nekk daal moom moom lay jëlis di feebar bu metti ndax mën nga leeralal rek ñiy seetaan te xamuñu lan mooy jëliis ñoom ñu xam euh, tolof tolof yi ngay dund jamono ji. métti trop métti na trop jëlis moom boo amul ci koo wéeru doo dem doo dem laaj na lekk yu baax laaj na ndox mu baax laaj na tëddaay bu baax laaj na tamit jëlis. fu mu jotee nga dem def ko naan naa di lool loolu lépp ci la bokk jalis bi di ma ngeen noonu man nag maa ngi ñaan ci ñi yàlla ak yonent bi ñi wa première dame bu mu mën a dimbali man man naa am ku ma ku ma ko fay rek may may jalis yi clinique dafa cher jamono ji kilinik ba ñaata ñaata ngay fay par rendez bu nekk. fukki junne ñett. 65000. fukki te ñetti fan yu nekk di nga dem foofu sa kilinik ba pour faju si. ñetti mu jege ñeenti weer ngay dund ak gàllankoor bi tawat bi boobu léegi nan ngay def ba say rendez jamono ji nga koy def. ci nit ñi rek ko yaakaare ci nit ñi rek bu ja jotee sama rakk bu góor bi waroon na fee nekk am ñoo ñu koy dimbale di ko yónnee ay cinq mille ay cinq mille ay dix mille ñëpp ñëpp jàpp ci eh, ba ba ba mat ba mat ba matul tamit dañ ci des ñu mottali ko ñu mottali ko man awma dara awma sama jëkkër xëylu gont sama doom yi dañu mujj yóbbu amul doom bu mag déedéet sama doom bi dëgëragul doon dëdd noonu mënagul mënagul boppam dara déedéet xanaa lamiñ ja lamiñ ja muy sama rakk mais mais kii bi nu mu tëddee maçon bi kooku moom bu bu amoon rek moom dina neex ndax moom daw ci dara keroog sax moom yóbbu ba may defee appareil bi keroog moom yóbbu moom dafa sonn ci moom man ñetti fan yu ne nga war a dem defi rendez-vous jëli sa rendez-vous mu lay coûter lu mu néew néew comme ni ñu koy waxee ju juróom-ñaar fukki junne par exemple mën nañu wax loolu euh, jamono ji amoo kenn ku la ko jox sa lekk ak sa naan ñëwagul te xam nañ ni boo amee jalis sa euh, sa ni nga daan dundee dafa doon changer ci sa wàllu lekki nag li ngay naan kan moo lay dimbali si loolu jamono ji wala nan ngay def ba dund. jaaraama ci ah jaaraama ci potu meew gulla yaa bee laa naan sama yaay di wax xam moom du bëgg di forcer ay togg te du amu ko man maay maay mujj ko bàyyi rek boo waa kër gi bare ñu may ma lekk ci suñ paree ma ne leen baax na meew meew moomu moo nekk ci sama biir ci ba tey ci sooba tey moo nekk sama biir añu ma tey te yaakaaroo jamono ji dina reer bi bi bi benn benn bu ndax sama jëkkër dem naa pharmacie ñëw ko junni ak do ñeenti téeméer moom ñaari junni la am ñaari junni la am mitit mitit baa ngi bëgg rey mitit baa ngi bëgg rey. ñeenti junni ak juróomi téeméer lay jar te sa ñetti junni. téeméer ñaari junni laa yor ñaari junni laa yor ak ñaar téeméer mu ne ma bu subaa ma liggéeyee naa naa jéem a jël bi moom moo tale ko moo tale ko. jamono ji nan ngay dundee ci sa lal tamit yaay booy xam nañu ni jamono ji bareetul loo xam ni man mënal nga ko sa bopp ci sa vie ndax loolu tamit yomb na. yombul de man dong nekk fii sama dem man dong nekk fii di di xalaat rek di xalaat sama dundu gi sama dundu gi xalaatuma woon sama dund ci lii mooy man dama daan liggéey di mën sama bopp di deewal sama bopp. boobu yaakaaruma woon ci kenn doo naan liggéey nekk ci samay xarit di di di di may léegi man duma génn sax sama doom yëpp tasaare naa leen ah ku ci gis dama wax ak yow téléphone ay xale yu ndaw kenn ki sax handicapé la mu mu dara boppam mu dara boppam mu mu dara boobu maa amoo ay mag yu jigéen tamit wala ay rakk yu jigéen yoo xam ne mën nañ la jàppale jamono ji ci sa dund. aw ma mag bu jigéen manqué manqué manqué mag kay moom moo yóbbu ji mën naa nekkoon ta taaw daan liggéey bu bu weer ma ma fayal ko luyaas fayal sama bopp luyaas lii des ma def ko ci samay doom wante maa ngi ni mënatumaa xëy mënatumaa gont ma koy ne ma Wally Seck dimbali rek ak jabaram noo jël à cent rek man na naan naa rek moo université bi boo taxawee université rek bunt bi giri ngay gis bunt bu giri la bu giri kon jamono ji maanaam fajowoo ci hôpital yi nga xamee ni ñëpp ko bokk li ñuy faral di wax hôpital public waaye ci privé li ñu wax clinique foofu ngay fajoo jamono ji waaw waaw waaw loolu yëpp li ko waral amoo woon ñu leen dimbali ba nga xamee ni dinga mën a fajoo ci hôpital yi nga xamee ni xëy na ñëpp ko bokk jéem nañ ba sonn waaye mënuñu boo xëy ñu kaabee tax kaabee tax mardi laa fa jóg mardi laa fa jëf fa defee lii heure bi waroon naa fekk ma delluwaat bu yàgg ma xaas ñaata lañ la wax xëy nit ni la boo ko amoon sa feebar bi dina mën a faju wala dañ ni la nga respecté say rendez-vous rek di fay soixante cinq mille euh, chaque ñetti fan yu ne ci semaine bi te de loolu lañ wax loolu lañ wax waaw waaw waaye waxul la ni nangam ci ay millions di nga faju ba wér. waxuñoo ko loolu kay buñ ma ko waxoon ma ñaan ndimbal sax kon ma taxaw ku mel ni nii ma ñaan ndimbal rek jaamu yàlla yi dimbali ma mën a sutandi sama doom yi ñoo ñu xaw a dëgër tuuti sax ah, ay xale yu ndaw rek laa am ay xale yu ndaw kese laa am. man naa xëy di leen gis rek ñu nekk ci seen jàmm ak seen salaam ah. jigéen nga kii yaayu senegal yëpp jamono ji mooy première dame Marième fay Sall am benn kuréel boo xam ne li ko tax a jug rek mooy bépp sénégalais bu nekk ci ay tolof tolof rawatina jigéen mu dimbali la ban message wala lan nga koy wax jamono ji moom première dame Marième fay Sall. man yàgg naa dégg ay ay jaar jaaram ay defal defal nit ñi moom yàgg naa taxaw di di di ko seetaan muy jàppale doomu aadama yëpp man tamit ni muy jàppale doomu aadama yi dama bëgg mu jàppale ma ko noonu na ma dimbale man jël ma jël jël ma asaaral man naa wér rek naa wér bëgg dimbali jamono ji fan la lay fekk. moo bëgg dimbali. fii bu amee jamono ji looy wax ci sénégalais yëpp góor ak jigéen képp koo xam ne yàlla def na. leen xew ma kenn Waly Seck ak papaam ñoom yépp ay borom yërmande borom baax lañ ak Balla Gaye de noo dimbale ngir yàlla noo dimbale ngir yàlla ñëpp maa ngi leen di woo képp ku képp kuy kuy jullit rek maa ngi woo maa ngi woo. équipe national tamit ñoom Cheikhou Kouyaté parce que defkatu lu baax la ci réew mi euh, te bëggul ku ko wax Cheikhou Kouyaté ak ñoom Sadio Mané ak yooyu. ñëpp maa ngi leen di woo ñëpp ñëpp maa ngi leen di woo. soo ñoom Cheikhou maa ngi leen di woo nañoo dimbale ngir yàlla ak yonent bi ak ak na ma dimbale na ma dimbale ngir yàlla ma ma man jalis bi rek naan na na ma wàcc. man maa tax mu génne sama yaay man maa man tax mu génne sama yaay. borom kër gi maanaam fii ñu la fekk jamono ji boroom kër gi dafa ne dafay génne sa ndax lan. ndax man mënu supporter. borom kër gi yow la mënul supporter moo tax mu ne day génne sa yaay. na na na jël na tëdd ci avance bu paree moo dem fi mu sama yaay mi ngi nii daa jaaxle amul fu mu jëm amul fu mu jëm. amatu leen fu ngeen dëkk ñu ngi leen jox délai ngeen war a génn te xamu fan ngeen war a dem. boroom kër gi jamono ji nga feebar la wax ni dafa bëgg bu bu ngeen tëddee seen avance ba pare ngeen génn dem. génn waaw war a demaat sa rendez laa gëj a dem mardi. waroon demaat ni kii démb aljuma waaye demoo. demoo waaw. boo lan lay def sa yaram. sama yaram bi day mel ni jargoño ci ciy dox. waaw day mel ni ay jargoño ciy dox. jargoñ ni moo ciy dox. di di di di di di mel ne jargoñ ciy dox. di di mel ne luy comme jargoñ buy dox. ci kaw waaw di daw sama yaram bi fi mu nii xamagoo kañ nga war a kañ ngay demaat ndax amagoo lu la yóbbu si sa rendez-vous xamu yàlla chaque jour lool laay xalaat chaque jour dama naan man sama rendez-vous yi man sax ñii ñoom ñoom ñu defar nañ ma appareil waaye yàlla ma yàlla baal jéggal ma waaye daa mel ni coono lañ ma gën ndax ndax dem chaque jour dafa metti te ñoom tamit dañoo sonn dañoo def ba sonn dañoo def ba sonn chaque jour ñuy màjjal ñu may màjjal dafa dafa metti ah. doom yi ndaw yi dama mujj di takk ñu dem seen yoon ñii dañoo sonn dañoo sonn dañoo màjjal ba sonn su tey ci wane woon daggati kay junni bi manqué rek day carrément ma day wax carrément duma duma jël duma ko duma la faj du la faj du la faj de du la faj de la faj du la faj moom amu ci sentiment fukki junne ñettee moom danga koy verser mu mu ñu jox la sa enveloppe ñu jël la yóbbu la ci kaw jërëjëf yaa Roqaya. am na booy noo def. nan nga tudd. Fatou Diouf. yaay booy ngay dund ay gàllankoor jamono ji ndax mën nga dëkk ñun tuuti rek ci jamono ji li ngay dund ci ay tolof tolof ci sa dundin jamono ji. waaw man daal ku ma dimbali rek laa bëgg ak ku ma jàppale si suma ci kenn ak sama njaboot yi maa ngi nii gis nga sax sama néeg baa ngi nii. dara amati bokk wala lépp jaay naa ko même bor annuel bi ma jël ndax taa ba ma def sama yére sax amati ma ko ndax ñàkk lépp sama ñaar doom yëpp a feebar maa ngi nii ci loxo yàlla. ci néeg bii nga dëkk. ci néeg bi nag taw naa foofu juróom-ñaari at léegi ñu kër gi ma ma toxu fii ba am ñaari weer léegi la ma la wax ne ma jox sama néeg. kan fi luwee. dee néeg bi la ma la borom kër gi ni la dafa bëgg waaw ne dama bëgg nag génn kër gi dina balaa balaa tabaski bi passé rek bu ñu tabaski ba passé nag ma abal sama nekk te jote wuñu dara xulóo ma moom ndax nee na malaati malaati ak mbokk ñuy dugg ak a génn da ko da ko neexul ci kër gi. nee na la ko neexul. nee ñu koy ci kër gi di waxtaan ak ñu seet ci malaat bi moo ko neexul ci kër gi. néeg bi yow yaa ko luwee woon yow kese. ma luwee woon. néeg bi yow kese yaa ko luwee woon néeg bi. man samay doom yi sama njaboot ñoom laa nekkal dong la nekkuma keneen ñoom dong laa nekkal kii bu mu feebaree ba sonn nag mu indi ko fi ci kër gi. xanaa amoo ay doom yu góor yu mag. doom yu góor de kenn ki moo moo moo moo mooy daw rek mu Lamine Diagne maçon bi mooy daw rek lu ne ci kër gi moo ko rey. benn doom bu góor rek nga am. ak ku ku ndaw ku mag ki moom mu teg nekk mu mu nga bale kenn ma kenn bàyyi faal ki moom mooy daw lu nekk mooy daw dépense mooy daw lépp mooy yóbbu kii toujours hôpital. ku ndaw ki nag moom. ku ndaw ki moom apparenté la xale la apparenté oto la. moo nekk ak soxnaam Kër Mbaye Fall. déedéet kooku amagul jabar sax. kooku amagul jabar sama caat la. amagul jabar. néeg bi ñaata nga doon fay par weer. junne juróom-benn téeméer ñaari junne juróom-benn téeméer. ñaari junne juróom-benn téeméer nga dem ba mën a toog a fay borom kër gi ni la nga génn. man bañ ma ko bañ a fay de weer bi weer bi ma ci duggee ba tey dama koy fay benn ko bëggoon a fay mu woo sama doom ne ko na tee xaalisam weer bi dee mu wuti nekk te amul fenn foo dem amoo doole joo jëlaatee beneen néeg tamit xëy na. fi mu ne fan yëpp tooguma fan yëpp tooguma fu ne xam na damaa koy dugg ak génn pour abal ko këram. sa borom kër xanaa nekkatu fi. daa yow kese ak say njaboot yéenay dund sa benn doom rek nga am ku la war a mën a jàppale te dooleem demeewul noonu maçon la. mooy daw dépense mooy daw lépp maçon rek la day day liggéey rek te mu liggéey rek jox jox ko nu ma liggéey jàppale ma jàppale xale la xale la. jamono ji lan nga bëgg nit ñi dimbali les. man kay ku ma jàppale rek ak sama njaboot yi laa bokk ku ma jàppale ngir yàlla ci kàttanu yàlla ak yeneen bi. jàppale ci lan wutal la dëkkuwaay boo dëkk yow ak sa njaboot wala ku la jàppale wutal la kër gu baax boo mën a nekk en attendant. sax ba nawet bi jeex rek sax baax na. Ndeye Rokhaya tamit ñu fekk ko fi mu feebar Ndeye Rokhaya Dia moom sa doom la. sama doom la sama taw mooy sama taw. mais loolu métti na trop say doom yàlla def ñoom ñu wéré di yow tamit ngay dund ci ay situation yoo xam ne situation yu métti la ndax waa koñ bi ñu ngi lay jéem a jàppale fi ñu la fekk ni bi jàppale ma trop loolu ma leen a pay yàlla rek laa leen di wàcceel ko du jàmm ak waa koñ bi yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla fay loolu ma leen a pay mukk ndax ñoom day batt mi ñoom ñëpp mooy leen ku nekk ci koñ bi yaa ngi may jàppale coow yo ko teewuñu seen loxo ci man de jaaxlu ma dara ndax ñoom ba gettu rek kan moo lay toggal jamono ji lu jëm ci war loo war a lekk ak looy soxla ci sa dund comme mag nga. xanaa jabaru jabaru Lamine ñan ngay woo pour ñu dimbali la ñan ngay xam ci réew mi ñu baax ñi fi nekk koo bëgg mu dimbali la jamono ji ci réew mi. yàlla man wax dëgg yàlla mënuma fay kenn ndax ñoom ne wax dëgg yàlla ñu may jàppale wax dëgg yàlla jël si bi sax barke de moo njaay ñoo ko toppatoo ba indil ba ko. waa moom jikko du jam léegi da woo première dame Marième fay Sall comme jigéen la te mooy yaayu Sénégal yëpp nga woo ko nga ne ko yaa ngi koy woote ngir mu dimbali la ci jafe-jafe yi ngay dund jamono ji yow ak sa njaboot. waaw man kay ku ma dimbali rek laa ku ma jàppale rek laa bokk damaa yor sama njaboot te aw ma fenn fu ma sis sa suma ci kenn sa suma ci góor sa suma ci jigéen aw ma camiñ aw ma dara. ama ca ñu ama dara su ci kenn. bi nan la yaay bu sama sama yàpp ne mu gaañu c'est ma ci kenn du sama njaboot gi ñoom dong la yaakaar ñoom dong la yaakaar. ñu dégg ni sa ñaari doom yu jigéen ñoo tëdd jamono ji tawat tawat boo xam ni du lu yomb faj tamit. waaw kenn ki bu nga yor cardiaque bu nga ne la ñaari fan ñetti fan mu tëdd. keroog barke dem nañ ko ñëpp ñu ko fa naanal hôpital bi ci Kambaaw baax na jërëjëf yaay booy. waaw ah, wax na di gërëm te di leen sant yàlla muy am pay nag leen yàlla pay waaw ndax mënuma leen a pay yàlla leen mën a pay ndax lu ñu def ci man mënuma leen a pay de yàlla ak seen tubaab ak ma rek yàlla leen di laa leen da ngay woo waa Sénégal yëpp képp koo xam ne rek nga ne képp koo xam ne yaakaar nga ne mën na la dimbali rek nga woo ko. waa Sénégal yëpp ku ma mën a dimbali rek nga dimbali ma ku ma mën a jàppale nga jàppale ma ci sama njaboot ak samay doom sama doom yëpp a feebar te sisu ma ci kenn ci kenn laa sisul kenn sisu ma ci góor sisu ma maa ngi ñaan dimbal ngir yàlla ak bi ak jëm seen Tuubaa ak ma ci kenn ku ma mën a jàppale jàppale ma ngir yàlla tax. salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur sa sant di leen ta dékk samay loxo ci yàlla ak yonent bi jëmmi jëmi Sëriñ Tuuba ak malik Si képp kuy kilifa diine képp kuy senegaal sama mag ji dafa yor feebar boo xamante ni côté bu ne daw nañ ci mënuñ ci dara feebar bi nag ñu koy wax jalis amuñu yaayam amul ñun nag ñu ngi dékk senegaal yépp suñuy loxo di dékk Waly suñuy loxo di dékk Marème Faye Sall suñuy loxo di dékk kuy képp nga xamante ne rek yàlla gane na la àdduna rekk ñu ngi lay dékk suñuy loxo ci suñu malaat bii sa suñ ci fenn nag seen doole bariwut amuñu dara jalisa ko dal bi njëkkee dem hôpital dañ ñoo wax ne fii lii bi kaa yi moo fi nekk ñu delloo si ñu ñu ñëw keroog bu ñu koy yóbbu dañoo jaaxle parce que perox jooyoo nañ ko waaye toujours rek ñu dénk ko yàlla bu ñu demee foofu ñu yebale ci benn clinique ñu dem ci clinique bi ñu jël laaj ñu ñaar fukki junne juróom-ñett ñu faj ko premier faj ñu indi ko su toogee chaque trois jours day yóbbu fukki junneeg juróom-ñett ak paasu taxi aller-retour bi fukki junneeg juróom yaayam amu ko man mii Kordu Ja maay bàyyi sama jaay sama restaurant fu may jaay dugg ci koñ bi màjjaal jaami yàlla yi luñ ma may ma indi ko ñu dem sunu amul mu toog bërki démb bi mu demee dañ ne ko yow bi appareil bi ñu la defal sa deret dafa foor dafa fat mënul def ñu bindalaat ko beneen appareil presque yëpp deux cent mille ma dem woote sunu kër fi ma dëkk man fi ma luyee benn defal yàlla nga fa ku ñuy wax Bamba Sàmb moo ma ma rakkama ma ko wool mu may ma 200000 bi ma nee 200000 ma indi 200000 yi mu dem ci lañ ko defaree appareil bii ci weenam bi desit weccet bi mu waroon cee dem matul démb la waroon dem jalis matul mu ngi nii toog du añ du reer su ma toggee su amee li nga xamante ni mun na ko lekk damay daw indi mu lekk su ko amul mu toog tey jii añ sax jaaru ci yaay a ngi nii kër gii la ñu dëkkoon si ginnaaw foofu dañeen ko abuloon boroom soxla na ko jaay na ko toxu nañ fii fii deux mois lañ fi am fii ñu nekk nii day seen boroom kër gi jox na leen dele amuñu dara fi ñu toll nii dañuy yalwaan rek ku ñu mën a dimbali koo dimbale rek nga te yàlla tax rek ñu ngi lay ñaan yaayam a ngi ni amul dara moom la ak benn rakkam rakkam bi tamit karjaag moo ko dal su duggee ci duus bi bu génnee bu sawee day daanu ñun daal ñu ngi nii suñu ñoo bokk koñ bi ñun ñëpp ñu ngi dëkk Diacksao 2 fi ñu toll dafa sonn fi ne nii mu ngi war a dem jalis demul jalis mu ngi nii toog añul ndekkiwul añul reerul man maa ci nekk di daw lu ma for ma indi te suñu tante jee nday biti Derneville moo ñu siy dimbale lu ñu ñëw wax ko moo ñu gën a jàng muy daw di ñuy dimbale ñuy dem ak a ñëw fu ne tàllal nañ fi suñ loxo fu ne ñu ngi fiy déposé ay kayit kayit yaa ngi dem fu ne ñu ngi ñaan nag képp ku yàlla gane nga dimbali ñu te yàlla tax ngir jëmmi sëriñ Touba ak Cheikh Ibra ñu ngi lay tàllal suñu loxo di màjjaal ñun ay taalibe sëriñ Touba rek lañ dañuy màjjaal te yàlla tax képp ku yàlla gane ñu ngi lay ñaan ngir jëmmi Cheikh Ibra ngir jëmmi Cheikh Ibra ngeen taxawuñu te yàlla tax fi ñu toll nii fu mu toog nii yàlla rek lay xaar yorul dara amuñu dara fi ñu toll nii añ sax jaaru ci yoruñu dara gis nga seen kër gi nu mel gis nga fi ñu dëkk man maa ci xam nga rek maa ci gën a oyof maa ciy topp di daw nit ñi bëgg nañ waaye amuñu jagsaaw bëgg nañ jagsaaw def kattu yàlla lañ amuñu keroog ba ma njëkkee màjjaal màjjaal naa ko fanweeri junne ak juróom ñett benn moodu moodu yónnee ñu juróom ñaari junne ñu dolli ci ci la doon demee fi ne amatul fi ne war naa dem nii bu demul affaire bi day gonfale maa ngi nii dama war a liggéey sama liggéey waaye ñii bi ñu ñëwee dama daw ñëw parce que maa ko fii dimbale bu dul man day metti moo tax ma ñëw toog sunu benn tànta mag la dafa yore tension fan yee da doon daw di ko dimbale ba daanu rakkam bu jigéen tamit mu nga ne dafa yore cancer kii dafa yore cardiaque moom i tamit mu ngi noonu ñaari malaat yooyu laa yore sag maa ngi sàkku ndimbal nag lu ma waay mën a defal nga defal ma ko dayaata buy taw dañuy toog moom malaat bi day toog te ku yore ween bu ñu def ay raakool noo toog ba bës set yàlla ji di sotti ci seen kaw di sotti ci seen kaw man de maa ngi ñaan ku ma mën a dimbale nga dimbale ma te yàlla tax ngir jëmmi sëriñ tuubaa ngir jëmmi alaaji Malick ngir jëmmi baay ñas maa ngi ñaan sama malaat bii lu ma ci waay jaayante rek ngir jëmmi Cheikh Ibra dinaa la sant dinaa la gërëm niki suba dimanche dama waroon dem màjjaali damay ëpp sama palaas gàddu sama leket dugg ci koñ bi di màjjaal ñun ay Baay Faal lañ dañuy màjjaal ñëw jox ko mu dem jëndi dem jali si bu jalisee fi ne jalis barki démb bi ñu mayee 200000 yi ordonnance amul fi ne def jëndul ordonnance bi sax jëkkëram góor góorlu la rek day dem si tefes bi su amee indi su amul nit nag mënoo koo forcer lu mu amul mu ngeeg jëkkëram nag ak ay doom yu ndaw yàlla da ko def njaboot bu ndaw waaye nag loolu lañ ci mun wasalaam maa ngi leen di sant di leen gërëm leen ñaanal ngeen sarax ma ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ngir yàlla ak jëmmi Cheikh Ibra maa ngi leen di saraxu ngi sama malaat bii te yàlla tax. appel d'urgence baa ngoog mbokki Sénégal tey ñu ñëw fii ji jàmm gën Diack Sao fekk fi benn famille boo xam ni. déglu ngeen suñu yaay ki nga xamee ni mooy yaay Roqeya ja li nga xamee ni mu ngi koy dund moom jamono ji ak kii tamit njaboot gu néew doole boole ci wéri di li diina santaane kenn ku ne si ñun xam nga ko bu dul solidarité bi la war sa diggante ak sa morom amatul leneen lu nit mën a jëriñ moromam ay mbokk lañu bu diine taxawee ay mbokk lañu bu Sénégal taxawee ay mbokk lañu bu xeet taxawee lenn rek moo war kenn ku nekk si ñun sa morom nekk ci ay tolof-tolof nga dimbali ko mbokk mi bul xeeb borom bi subhaanahu wa taala nee na def lu baax léeg-léeg wa taxsibuunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim léeg-léeg nga yor 100 francs bëgg ko joxe te yàlla tax ni noonu non 100 francs dama koy xeeb fekk 100 francs yooyu nga joxe ko te yàlla tax kenn xamul li muy représenté sa digganteeg sa borom lu naafeq dul def naafeq mën na julli mën na jàng alquran mën na téekurus di wérd waaye lenn rek la naafeq dul def mooy jël alalam dundale ko te yàlla tax moo tax grade la boo xam ne yàlla ñi mu ko sant rek mooy ñi gëm yàlla appel bi lenn rek la appel d'urgence ñi gëm yàlla la ñuy woo ndax alladina yuminuuna bil bi la yàlla wax wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiquun ku gëmul yàlla doo dundale donc kon foog ñu wax ko bu fe bu ñu demee ba nga xamee ni kilifa diine yi ñu ngi leen di woo ndax wax dëgg yàlla appel d'urgence bi ñoom la gën a concerné bu ñu tënkoo rek ci diine waaye nag lil ësëf comme ni ñu koy waxee euh, c'est vraiment regrettable ni ñuy gën di euh, dégg ci mbiru solidarité jamono jii ñi nekk ci beneen domaine bi la ku mel ni Wally Seck nga xam ko Sénégal yëpp seedeel ko loolu Cheikhou Kouyaté suñu dernier invité Jibi Sarr témoignage yi mu yëkkati woon xam ngeen ko ak yeneen ak yeneen suñu papa Iran Ndaw aussi grand cœur ñu ngi lay woo incha allahu rabi ci lu yàggul dara dinañu ñëw cas yi ñu présenté la ko appel baa ngoog lu waay mën yàlla tax na ko def waaye nag kuy naa fekk xamal ni doo dundale sa